ونور رسول الله إن ربيا كتابتي أحمد بن عبد الله قسنتي وسانني أن لائي سنت بشري مكاتب التسوق أهمدنا ميسرا لما زر ساطي القرآن ونبي ما جادني بسايا ونفي أداني الله بالكتاب ومن أبي بلا إتاب رب الإله والنبي أحمد وسيلتي وإنه المحمد كرامتي يا كوني يا عبد الله xadim abdoulaye abdalaay rasuluna amadou sadiri ila salla alayhi wa kafa duralla jazaa muntaqa xayra jazaa fi kulli saatin wa saati jazaa bihtu bi la ilaha illallah siran wa la ilaha illallah هذه القصائد قلوب الجند لي بسرى مقبى وبسرى أورك الإيد هذه القصائد قلوب الجند لي بسرى مقبى وبسرى أورك الإيد أنا والعرود والبيان لي سلبت ولبيان أربتي كتاب من المدور وبه في تتقرنان إذا كتبت إيد الأرس الباغي وذب الملائكة التباغي على نبي الآية سيد الآية سيدنا نور رسول الله الذي أبلاي أبلاي خائد الخلق لاي للإله سيدنا محمد والآل وزد به في الآل والمال وجل بجاه المنتهى آياتا رعاية القرآن سلقات وجل بدال فوق كل ماي بركة كما تري السماء وجل كتابتي ككل مرسلي يا من وابتلي أجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كبر xablu akuntari bi mu dilin nawaar yàllaaw yaa ramaan yaa raym yaa man bi majidin majidin xasum wajal bi jaay muntaxaat riaayatal quraan sil ayaat gërëm na la lool ndax nee na bu duggal itam ko jàpp ni ko def def ko sa bi waaye def ko ne sa doom def ko ne sa lépp loo bëgg wax rek daal ni Abdou man mi xam naa ci dara danga ma woon ne mu ne ma ne Abdou Lahad nangam ak nangam waaw kaw Abdou Lahad dafa yéeme kon nag kenn mënu ci dara kon nag loolu nee na bëgg na ci lool daf ne daa am loo xam ne mënus koo wax ndax mbégte mu ci am mu ne ma nag ma jottali sëriñ bi sama kat di mbégte xamal ne ko visite bii daal visite bu ne ñëw na fi waaye bu ma dàqale ne bii gisaguma ko kon nag ma ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla yàggal la fi lool ci wéral la lool ci barke Cheikh Modou Fadal mbooloo mii nga xam ne ñooy liggéeyandoo ak moom nag te fakkastaluñ ko ndax lii boo gisee xam ne mbooloo mi liggéey ak moom ñoo am fa volonté te kenn ku ne daa jàpp ne sëñ Touba nga liggéeyal kenn ku nekk da jàpp ne yaa nga Touba ak Xelkom kenn ku ne yaa nga jàpp ne yaa nga Touba kenn ku nekk da jàpp ne ba ñum njëkk ña daan liggéey sëriñ su mag fañ ñëwoon fa lañ ñëw ñii nekk moo tax kenn amu ci léegi xaal ma seet amul dara moom itam yàlla def ko muy liggéeyandoo ñu mu war a liggéeyandoo mi ngi def ci baatin waaye itam li mu war warloog ñoom mi ngi leen ko jox ba mu mat sëkk boo ne kenn ku ci nekk nag kenn ku nekk xam nga fi nga féeti ci moom kenn ku nekk liggéey bi da nga def muy sa toolub àllarba kon nag loolu bu ñëwee fi nee na war naa mën a sant kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk ah, ñi nga xam ne ay xaritam lañ ay taalibeem lañ ay liggéeyandoom lañ ca ñoom ko fi ñoom ñëpp kenn xamal daal mi ngi lay seereel ne daal ñu ngi ko jàppale ci liggéey bi ndax bu doon moom rek liggéey bi lii nga gis du mel nii waaye ñoom ñi ñoo taxaw futteeku jaayante ak Serigne Touba ba liggéey bu mel nii na yeneen bâtiment yi fi ne de waaye bâtiment yi fi ñu toll mm-hmm. bâtiment bi laaxatkat yi fi ñu toll yenn bâtiment guñ fi te loolu ndimbalu Sëriñ Tuubaa la kon nag nee na mi ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax di ñaan nga ñaan na yéen ñii ba liñ bëgg lépp ñu man ko kon buñ toogee ba yàlla dogal euh, Sëriñ Abdou Lahad Mbacké sos daara ji muy dox ba agsi ci mu Muntaxa mu tàmbali ko di ko liggéey yàlla dogal nga dellu si fii fekke loolu te man de li ma mën a seere ci yow te xam ko mooy daal lañ la def loo woon mooy alxuraan moom nga gëm moom nga doyloo ndax kenn mosulaa dégg Italie kenn mosulaa dégg Amérique kenn mosulaa dégg France te yaakaar naa ne demoon nañ ba yaakaar ne ku fa demut waroo tekki mais da nga gëm sa maam gëm li mu def xam ni lépp a ngi Touba lépp a ngi Sénégal nga toog Sénégal nangu woo dem fenn ba fi mu toll kenn mun laa dégg fenn lu may Sénégal ba sëñ lu fekkal la fi boppam mm. defal li mu la defal ndax nag ñoom képp ku leen doyloo bàyyil leen seen bopp ñu defal li ñu la war a defal mhm. ku làmbatu ji feneen man nga caa sonn te doo gis la nga war a gis yow nag yaakaar naa ne ci li ma xam te gis ko ah sa bàyyi la jëkk woon aw yoon rek nga xam ko gëm ko ndax fii nu bokkoon di nekk ci panterie bii fi kër Soxna May gii na nga fa nekkoon woon ñun ñëpp fekk nañ ko muñ nga nga fa nekke woon na nga fa tooge woon te teewut mboolem ñun ñi fi nekkoon ay tuut tànk bu bu bëccëgee bu ngoonee lépp loo am lu mu tuuti tuuti da nga ko def ay café wala nga togg ko dina ko jox ñu di ko lekk loola noo ko mën a seere ci jafe-jafe yu métti na ca yooyu jamono nga jóge fa ba nga demee Ndakaaru nit ñi dem Amérique di dem France di dem Italie da ngaa doyloo sa bàyyi doyloo sa maam toog Sénégal ba lii mu la defal mu fekk la moo la topp ba ak si fii ñun daal gëm nañu ne tey sëñ Fallou toog fii gëm nañu ne sëñ Tuubaa fii ndax la nga gëmoon si sa bàyyi gëm ko sa maam loola moo la topp ñii ñii ñii bari nit ñun fekki wuñu xamul waaye ñun ñu xamoon xam nañ ne daal lañ la def loo woon defu nga ko ba nga war a jàng alxuraan dugal na daara jàngi nga alxuraan yàlla dogal na toog naa fii di dégg ñuy wax ne mbàkke mbàkke yi nekk yu sëñ Tuubaa di seen maam suñu Abdou Karim ma ci dàq bind te loolu ñu bari fekk nañ ko gis nañu ko mbindam moom jàpp naa ne fii mu ne am na kaamil bu ko génne woon ku mu ko teg sa loxo da nga am milliard boo koy mool di ko jaay dabi milliard ndax kaamil suñu am nañ ko ci waaye mën naa waat ne moom mi bind na kaamil yoo xam ne bu ko génne woon tey joxe ko jox ko jox rek sa adduna dina defaru ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di ñaanal xalif général mu yàgg fi tawér amiin di ñaanal Serigne Sidi Abdou Lahad ak yow mi ngeen yàgg fi lool tawér ah, di du ma du ma mën wax tey ndax mbégte mu rëy waaye daal di ñaan sëñ Touba di ko ñaan képp ku dib taalibe nga ñaanal sëñ Abdou Karim mu yàgg fi te wér ndax ndax ndax sama baay day waxoon na Serigne Abdou Lahad ne ko sëñ bi mu ne mën ko nit koo gis day euh, boppam ma ko bàyyi ci mbir bëgg sama bopp ma taxa na dann ne la ngay sëñ Tuubaa ma ne la dann te ngir sama bëgg sama boppa tax ma def la ko dama wóor ne mënal ngeen ma lu ma ci sama bopp lu ma munut moo tax ma di ko def loolu nag euh, firnde firnde nga ci ma daal ni nga ma jàppe euh, di def ma doom def ma taalibe def def ma xarit te sab xarit sax matuma ko waaye doom gi ak taalibe gi daal toll na ci man noo xam ne am na am na munuma koo xayma di di di ci di la ci sant di la yëgal ne it sa sa sa xarit ba di sa xalifa bi muy Serigne Sidi sant na la cant goo xam ne am na tàmbali waaye amul ab yemukaay ndax kon man xam naa bu baax sa digg ak moom. loolu nag soo yàlla dogalee nga ñëw fii tey ci liggéey bii nga xam ne liggéeyub Sëñ Tuubaa la Serigne Mountakha yëkkati ko teg ko ci sama loxo ma di ko liggéey nga ñëw. di seet si ko man sant gën na maa sant yàlla sun woon ndax gëm naa ne sëñ Tuubaa ñëw na gëm naa ne sëñ Tuubaa nangul na ma ndax fu ma la lu ma la séen rek xam naa ne sëñ bi nangu na ko defe naa ne wax naa la ko daaw jeeg ci kër ga nee naa la sëñ bi eh, am na am na loo xam ne du waxu rajo waaye yaa gëm naa ne loo dugg rek sëñ Tuubaa nangu na ko maanaam loolu loolu moom xam naa ko day rek yoon wi moom duñ ci ay mag waaye duñ ci gan duñ ci gone ndax buñ ci gone yi doomi mag lañ kon nag mbir nag walax njaat nag war naa war naa lu mu xamadi xamadi dana xam li ci ndaal yi te ñun wallax njaani yoon wi lañ ndax yàgg nañ ci ndax suñ maam la woon ak sëñ Tuubaa suñ bàyyi la woon ak seen wàjjur ya ba ci ñun ñi ak yéen waaye daal ñoo ngi lay ñaanal ci darajey sëriñ Tuubaa yal na yàlla guddal saw fante wéral say cër le ngërëmal sëñ Tuubaa moom am nga ko ba noppi ndax taalibe yëpp képp ku di murit rek te bëgg lu baax rek bëgg na Serigne Abdou Karim gëm na ko mi ngi koy ñaanal donc te ñaani yaakaar yi murit yooyu nag maanaam ñëpp ñu gàcc ko ci Serigne ngir suñ borom musal la te suñ borom moom lépp lu Serigne Touba bëgg defal na ko ko kon yaa defal na la loolu ñu yàlla jërëjëf sant daal mënta ñëw gi ma ñëw fi bëgg na bëgg naa ci lu toll wala lu ko ëpp koy tàmbalee ci dama wax ne sëñ bi muy taxawal jumaa ji xam nga ni jumaay Touba ji ni mu toll te booba eh, Touba ay kër yu néew fi ne te kër yi fi newoon na ko néew sax ay kër yi ñax rek la loolu koo xool taxawal fi jumaa ju mel nii xam nga ne xam nga li ñëw ci kanam jumaa ji fi mu nekk nii li dëkk bii rëy rëy lu ñu toll bu ñëwoon it jumaa ji mën a nekk seen jumaa jumaa ji doy ko fi ne gis nga Tuubaa ni mu rëy waaye jumaa ji da koo doy ba des loolu moom la Sëñ Abdu Lahat def Sëñ Abdu Lahat euh, bibliothèque bi mu tax daaray kaamil ji mu def ci penk jumaa ja ci këram la ko tàmbalee woon muy ab néeg mu ay machine def fa yóbbu fa ay gaay ay xale yu ndaw yoo xam ne ay boroomi xam-xam lañ tey taalu bi piir muy ñoom xaadim ka ak ñoom ñoom ak ñooñu ñu ñu muy dem ba xajatu fa yóbbu ko def ko daara yi kaamil yi xam nga kooku xamoon na ne ba muy def néeg ba xamoon na ne loolu muy liggéey ci daara ju mel ne rek la jëm te moo ca ca la xaj mm-hmm. loolee mooy dox ba mu taxawal fii xam nga ni lii sëñ Blaat bi mu koy taxawal booba yaatuwaay bi doy na yéeme na kenn xamul lu mu doon waaye booba xam na fi mu jëm moom ndeke booba ki ko war a liggéey mu ngi ñëw muy Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké xalif saal liggéey bi nag yéeme na bâtiment yi nga ma doon wan léegi muy juróom benn bâtiment benn bi rek benn benn ci juróom benn bâtiment yi doy na doy na kimaan doy na ma doy na sëkk ci yéem yéemu waaye li ci gën a doy waar mooy sëñ Abdoulaye sos fii lu dem ba waxtu wi nga koy yeggale sëñ Abdoulaye yor liggéey bi xam nga loolu. xam nga loolu xam nga loolu mbir la. cay lu mat a seetlu waaw moo tax Abdoulaye Ka man ma fonkal ko sama bopp. ma ko jëkkee gis dama ne man Abdoulaye bi ma koy dégg damaa defoon boo ko gisee. nit nit ku xaw a doon changement lay doon doon murit boo xam ne bii day day kii lool du daanaka ak taalibeem du du kii mm-hmm. waaye ma gis ko mm. ndeke moom murit saadix la loolu laa ko wax loolu laa ko wax bi ma ko jëkkee gis waaw man dama dama dafa bokk ci yu day bokk ci ñooñu nga xam ne ay borom yi doole la ñuy doon yàlla jox leen tur ci yoon wi ñu di ko wane saa bu nekk di ko feeñal waaye bi ma ko gisee xaw ma woon ne nii mu mel noonu lay mel xaw ko woon. yaakaar ah. yaakaaruma ko woon sax. dégg nga loola nga ma saf ba léegi. yàlla boole la ak alaaj Njaay mi nga xam ne moom itam. yoon wi da koo ñor. Mm-hmm. sëñ Fallu ñor ko. Mm-hmm. lool. mu di ci dox doxin bu rafet alhamdulilah ba ñi nga xam ne <clears throat> dañoo bokk ci Serigne Fallou ak yoon bi yëpp naw ko wóolu ko bëgg ko mu ñëw nekk ak yow fu ñu la tudde rek mu seere walla sax fu ñu fu ñuy fu waxtaane te moom faw mu tudd la fa balaa balaa jeexal mm. wax ci yow say taxawaay waaye lu ma ne ko alaaji sëñ sëñ bàyyi laat de loolu mi saaliwu mi loolu yoon muy wax ci Lomé soxna may mooma bëggoon yóbbu Gabon ngay galas fekk na boobu dem Gabon yombul jamono yooyu eh, visa yi ak yooyu dugg fa daal yombul mu ne ma nag da jaar ci yoonu suuf bi boo demee ba Cameroun nga toog fa tuuti ñu topp tool la say kayit bu nga mën a dugg ci laa jaare noonu ba njaar lome fekk ko fa waaye bi ma demee ba Cameroun yàlla dogal eh, sontak yooyu soxna may di rakkam mu yóbboon ko fa mu wàcc liggéey mu dellu looloo ma wàññi ba àgguma gabam waaye ñoom dañoo doy waar mm-hmm. ndax sëñ Abdu Lahat bi may dem te boobu man maa ngi dem Gabon waaye boobu it dem Gabon daanaka kii wu ma rek ay ay ay waxam ma fa yóbbu rek waaye ite woowu ko woon waaye bi ma demee ba ba ba ba ba ba Burkina Faso laata du guddi rek gént gi Sëñ Abdu Lahat mooy xalifa bi ci laa xam ne xalif général de Mouride lu ñuy gàccoo la lu ñuy lu ñuy yor la mu mu mel ni dafa nekk ci miir bi nii ne ci biir dafa mel dafa nekk ci biir miir bi moom suñu blaat ak kàll ak yooyu noonu mel rek ne foo jëm man ne ko ah, man kay xaw ma ko man ne ma wàññikul loolu rek la ma wax <coughs> ma xëy sama yaram yépp de ci gent gi ndax la ma gis xam naa ne gént la waaye gént gu làmboo mbir la mm-hmm. mu rëy sama yaram bi ma xëy am na ngóotu fa noonu ma yónni ko ndawal bu bari mu dem jëndal ma ko ma xiiwli ci jox leen ko yàlla dogal mu mel ni daal dafa li woon li ma li sama yaram doon yëg dafa wàcc ma décidé ndax bi ma bi ma sëñ laa waxee loolu décidé woon naa wàññi ko ci suba gi waaye bi ma defee noonu ma ma décidé waat dem te guddi sëñ lu ñëw ak sëñ mag bi taxaw fi sëñ bi laa taxaw sëñ Fall foo jëm ma ne ko man damay dem rek ma ne wàññi ko waaye fi nga jëm da nga fay wuti li nga bàyyi gannaaw ko ëpp loolu bi sëñ mag bi ne ko ne ko bàyyi ko rek bu jógee fii di jàll du àgg fi mu jëm wàññi ko rek lay def waaye bu yeggee fam fam soxla bu fa yeggee du du bu fa bëggee dem du du yegg hmm. sëñ bi daal woon na mu fii belal ma ma ni ma bind loob kaamil ba ma waxee li may wax ba ma génn bay dem ba toll ci bunt bi mu wawaat ma ñëw mu ne ma fexeel ba mu doy waar de moom nu mu doyee waar rek doyee noonu waar hmm. waaw moo tax ma ne xaadim loo wax rek danaa ko danañ ko gëm ndax ceeb bi ak diw gi ak dugub ji yaa ko daan yóbbu oto xaadim foo ko mës a seen rek yóbbu na yóbbu na ceeb wala mu wala mu yóbbu wal wala wala mu di ko jël di jël yi ngir yóbbu ko loolu rek moo doon liggéey moom dégg kon daal liggéey bi di dox di dox ba si loxo ki nga xam ne nag moo ko war a yegale yàlla nañ ko fekkee te mu sotti ni mu ko bëggee moo Cheikh Mamadou Mountakha euh, te yaakaar nañ ne dana sotti de ndax sëñ Tuubaa koy jàppale li ma waxoon ci sëñ Ebo rek dama ne woon sëñ Ebo nun waa kër sëñ Fallou ay sikkim lan rek geestoonu yóbbaale sëñ Ebo mooy geestu nun ay sikkim lan suñu booy geestu bu geestoo rek sikkim moom bu bu bu bu geesoo rek yóbbaale yóbbaale yóbbaale ñëw ñëw sikkim ya loolu mooy dox ba léegi barki dem rek ñëw na sama kër ndeysaan bég loolu ànd ak suñu murtala ak ak rakam yooyu benn si jabi bu ñoom ñoom it ñu bég lool loolu nu di ko sant yàlla mi ngi ñaan daal liggéey bi yàlla na sotteeg jàmm ci ci ci sa loxo bàyyi laat ak yeneen ak yeneen yu yokk yàlla na ko yàlla def bég nañ bu baax daal ci teewaay bi jërë ngeen jëf gaa ñi nga xam ne ñoom nga wax ne ñoo lay jàppale it mm-hmm. euh, bég nañ ci ñoom mm-hmm. da wax léegi kàddu gu am solo ci sa sa sa waajur la xaw ma sa maam nga wax mm-hmm. koo xam ne kii dafa waxoon sëñ bi ne ko li ma li ma li bëggal sama bopp xam naa ne li nga ma bëggal a ko ëpp moo tax ma ñëw jàpp ci yow waaye ñii itam luñ mën a def ak luñ bëgg-bëgg ak lu ne ci seen xel li li li bi li leen sëñ bi bëggal te mënal leen ko bëggaluñ ko seen bëgg-bëgg mënta yegg foofa ndax bëgg-bëgg dafa am dafa yaatu dafa am ay ruq yàlla li mu def ci bëgg-bëgg dafa rëy dafay def ci jaam bi <clears throat> mu bëgg rek fi fi fi pas-pasam toll ak yéeneem waaye ci bëgg dafa am ay ruq yoo xam ne yi ay ruq yu naqaree xam la yoo xam ne yii nag sëñ bi moo leen koy ruqantil boole kook li ngeen bëgg li ngeen yéene yàlla defal leen ko incha allah jërë ngeen jëf alalladi satali tawida lakk wa bi rasulika alwayda